googom ci xibaar ci accident Cheikh Amar bi. waaw accident bi mu ngi am ci wetu 19 heures ci euh, autoroute Ila Touba bi moom nag ñenn ñi ne nañ dafa jóge woon Touba di di dafa jóge woon Dakar di dem Touba lu ci mënti am accident bi oto bi nga xamante ni moom la yoroon mu di ab Range Rover moom moo am ay tonneau bi nga xamante ni lii di bi dafa rocceeku oto bi def nag ay wëndeelu ci kawam ba ba mu taxawaate ci quatre yi la ñuy jot euh, ci xibaar moom Cheikh Amar am na ci gaañ gaañ méttiwul sax yu bari. googom ci xibaar ci euh, accident Cheikh Amar bi. waaw accident bi mu ngi am ci wetu 19 heures ci euh, autoroute Ila Touba bi moom nag ñenn ñi ne nañ dafa jóge woon Touba di di Dakar ñu ne dafa jóge woon Dakar di dem Touba lu ci mënti am accident bi oto bi nga xamante ni moom la yoroon mu di ab Range Rover moom moo am ay tonneau gannaaw bi nga xamante ni lii di carburant bi dafa rocceeku oto bi def nag ay wëndeelu ci kawam ba ba mu taxawaate ci quatre roues yi la ñuy jot euh, ci xibaar moom Cheikh Amar am na ci gaañ yu méttiwul sax yu bari.